ma ni ka kuy def politique ñetti yëf rek la soxla bu njëkk bi mooy ñu fal ko deuxième bi mooy ñu falaat ko ñetteel bi mooy lan mooy mu bàyyi turam ci àdduna kon ñoom alaaj ma ñu leen ba tey te nekkatul fi man nag président fal nan la falaat nan la bàyyi sa tur ci Sénégal bàyyi sa suuf si nag mën na nekk comme Desmond Tutu wala Mandela man ni ko man boobu laa la yéene waaye mën na nekk comme Hitler yaay seet nag waaye bobu man yéenewum la ko yéenewum ko Sénégal waaye soo gisee ni muy jëfandikoo mu lay naqadi am na yoo xam ne dangay ngay muñ rek passé am na yoo xam ne il faut nga wax monsieur le maire bii tey bëgg mu participer si élection yi te Macky ak ñi ko wër teguñu ko fen parce que kam nag ëpp nu droit fii ci Sénégal mooy président de la République naam mais gën nekk sénégalais su ngeen ko weddee na maamam woote sama maam woote xam ngeen ko lii xam ngeen ko na maamam woote sama maam woote xam ne ëppale wu ma si Sénégal waaw bëgg lëmbale Sénégal di jël ay décisions yoo xam ni jaarul yoon kenn mënu ko accepter kenn ñemewu ko def France waaw ah, jël xaalisu Sénégal di ko jënd ñi ñi pour ñu wooteel la waaw ah, fekk ay gor nga jënd seen diine jënd seen góor uniquement pour ñu wooteel la en France ku ku ku ger nit pour mu wooteel la kaso ba nga jëm kenn ñemewu ko fa def partout sur l'étendue du pays ñi ngi jël xaalis bi di jël ay nit pour ñu voter la te ñëpp yéen ñëpp a ko xam ah di def li ñuy wax les voltigeurs nga nekk Pikine ñu yóbbu la Grand Dakar pour nga voter fa jox la fa carte d'électeur ko kenn ñemewu ko def fu dul fii Sénégal te ñoom ñoo nekk si xolu loolu jël benn décision ci magay ñoom fi ñu àggee foofu rek laa xam ni duñu ay nitu dara fay nu fay nu fay nu naar ba xoromam maa ngi fàttaliku en 2014 bi élection yi jeexe ñu war fal le maire de Pikine Macky nekk à Paris daf ma woo maa ngi doon def bés boobu tàngu koor la woon maa ngi doon def conférence si si ñoom ci daane mbaay seen daayira boobu jëppal président woo ma bi mu ma woowee yaakaaroon naa ni Boubacar Camara ma naan ko buuba may ma may ma may ma dama nekk si conférence munu ma du Boubacar Camara c'est le président la République du Sénégal Macky Sall ma ni ko lu xew mu ma il faut ma wax ak yow ma ni gaañ may leen ma rek cinq minutes ma ni ko président lan la mu ni ma dam lay woo pour la situation à Pikine déglu leen bu baax lim leen wax ku ma waxoon ni ñoom tey daanu poignarder dans le dos du ma ko gëm ma ni ko lu xew mu ni Pikine situation bi mënuñu ko perdre le PDS mënu ko jël mu ni ma waaye PDS ñoo nu raw trente cinq places la ñu am ñun ñu am trente deux place yéen ngeen am di place ku ngeen bëgg mooy falu ma lay ñaan seen di places yooyu jox leen nu ko ñun parce que ñun nag yéen ñoo bokk benn euh, benn bokk yaakaar mu leen amul benn problème mu ni ma soo ñëwee maa ngi ñëw tey si guddi dama bëgg ëllëg mercredi nga fekk ma pale ma ni ko ban heure mu ni ma dix huit heures ma ni ko dix huit heures heure mun ma ñëwal ma invité la ndogu ñu ndogu nga jiitee ma timis ñu waxtaan dégg leen bu baax li muy wax là c'est des faits <coughs> ma dem ñu waxtaan ñu ndogu ma jiite ka timis après mu woo Ablaye Timbo bii fekk daf ma laaj lan ngeen bëgg dans la municipalité de Pikine moo ma ma mu ni ma ñun le premier adjoint au maire moo wax ko président bi def ko au parleur ni ko déglu mu déglu ma ni ko le premier adjoint au maire noonu ak le cinquième adjoint au maire ak des commissions mu ni ma yëpp danaa ko def woo Ablaye Timbo ni ko li sëñ Mansour def bëgg yëpp na ngeen leen ko defal bi ñu d'accord si loolu le premier ministre Ben Abdallah woo leen ñoom ñi ñu dem à la primature pour mu jox leen xaalis bi ñu laata dem leen su leen joxe xaalis lànk leen ba pare woo nag premier ministre bi ni ko nag euh, daf ma woo ni ma wooyee ñu ngi jógee si koor gi xam naa ñi ñëpp soxla na xaalis pour corriger yooyu sa gaañ daal suñu yeen naa tegal da si am man ni ko bu leen ko jox wax naa leen déjà soxla ñu joxee xaalis bu ñu ko jox ñu dem def élection yi ñu fexe ba nu gañe naru noo nekk ilal abad maire de Pikine ndax ñoom Pikine nu ragal te xam na nañu ñun li nu am si Pikine naru nu ko doon mukk doon mukk abad te bés boobu mu ma woowee la veille maître Sall maître Sall benn waaw ñëw du PDS ñëw na sama kër ba trois heures du matin pour que di di voix yooyu ñu jox leen ko ñoom ah ñëw sa kër man ni ko ñoo lank jox ko ñoom ma waaw ah, fay nu naar ba xoromam tey ñoom am nañu fi ci créer les conditions que pour que kii nga xam ni pendant sept ans mu nekk juin au maire xanaa ku nekk l'adjoint au maire pendant sept ans benn maire bi xanaa xam nga ni ñuy defaree liste électorale sept ans xam maîtriser les procédures de la municipalité boo xam ne Ablaye Timbo si boppam maîtriser wu ko waaw le huit élection amuñu expérience boobu ñi ñi bëggal ka seen bopp parce que doole ji mi ngi fii doole jaa ngi fii liggéeyu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha kenn mënu ko fi dindi man loolu laa gëm da nga ñàkk xam sa bopp war sa sëriñ war sa diine war sa tariqa wor sa ay waajur yi nga xam ne ñoo la jiitu barzaq war leen ànd ñoom kooku moom mën na nekk waaye lii fi nekk xam na ñun suñu soxla sunu sàccul jaare lekk si yoon suñ soxlaa ñëpp ñàkk nañu loolu nag ñoom xam nañ ko ñu ngi siy liggéey parce que Pikine dafa am importance pour ce pays Pikine dafa am importance te ñun lu nu mën def pour indi jàmm ñu ngi koy def gis nga délégation sama ñoom euh, euh, euh, sëriñ si demoon <coughs> dem seeti ka bi affaire bi <coughs> waaw maa toog di ko dox di ko dox di ko dox ba nu constitué délégation man leen man nag munuma bokk si délégation bi woo xalif bi wax ko ko ni ko dama féyte ba pare man Sonko laay dimbali kon mënuma si bokk nanu wut ñeneen ñu jox leen ko ñu jox mais nag may may def pression tout ça pression di waxtaan di waxtaan ba affaire bi antu yàlla indi jàmm ñëpp taxaw si ñaan yeeg yëpp dugg si nag mais su fekkee ne Macky nii la bëgg defee xam nga li ngeen gis au mois de mars laax bi rek la soow mi ñoogul te soow mi su ñëwee du saf suukar du am gloria mais il faut mu dellu gannaaw li ñun duñ ko accepter il faut mu dellu gannaaw kii moom ñu jox ko am na légitimité au niveau de sa base base bi nga xam ne bii ñoo ko yaakaar am na légitimité parce que il est à la fin d'un mandat où il peut faire un bilan la a double légitimité loolu yëpp ñu bëgg ko ignorer toog ba mu neex leen rek ñu def seen ay communiqué éliminer ku nu bëgg éliminer comme ni ñu ko defee woon durant les élections présidentielles indi parrainage <coughs> éliminer ku nu ku nu bëgg éliminer mais mënuñu nekk dans un pays boo xam ne bii président mooy choisir ay adversaire am comme ku nekk rek ci coupe du monde yaay choisir équipe bi ngay jouer ba pare fii amul règle du jeu Macky mooy décider lan mooy pénalité lan mooy coup franc loolu mooy hors-jeu yëpp moom moo koy décider kenn gisul fichier électoral bi depuis man je suis depuis neuf ans député à l'Assemblée musuma teg bët sama fichier électoral mais c'est quoi ça man may leader de parti politique nekkoon vice président de l'Assemblée nationale musuma teg bat le fichier électoral xam na lu tax du ko wone parce que Abdoulaye dafa sàcc les élections en 2007 kan mooy directeur de campagne am Tanor boycotté élection législative ndax dan lu wax sax affaire sàcc élection amul foofu doo doo doo juum ba nu wax ko parce que xam na ni lépp jaar na yoon mais fii da dem Pikine ñu inscrire la à Grand Dakar nga fay voter ce qu'on appelle les voltigeurs mi ko ba kañ jël xaalis dugg ci daayira yi du jox nit ñi pour ñu voter la loolu ba kañ mais loolu mooy li fi am Macky Sall lii mu bëgg il faut mu dem des gens comme Moustapha Guirassy ak lanu doon ak Kédougou nga fexe ba éliminer leen cest à ku ko neexul doon nekk candidat comme man ni ma éliminer sur le parrainage xoolal lu mel na Tivaouane la région de Thiès Tivaouane ma nga fa Thiès ma nga fa Mbour ma nga fa Diass ma nga fa ñu ni parrainage bi ñetti re ñetti département yooyu yëpp

mais ñu wax cinq cinq laa fa am daal di wax ma sax jas jas nga xam ni suñu kër foo albatiku ña fay liggéey yëpp jas saa fenn lañu jógee bi mu amee waa kër ga dañu wax mais ñun su ñëwoon fii rek xanaa dina am lu ëpp cinq ñun ñëpp saa fenn lañu jógee waxuma waa Mbour waxuma waa Tivaouane waxuma Mathia ñu ni cinq personnes daal di cinq parrain laa am waa loolu ba xañ ba kañ ba kañ dafa ni dañuy yor rek toog li nga xam ni moom la des Desmond Tutu wax ni su fekkee ñu ngi noot nit ñi ku nga xam ni kii yaa ngi war àddu te àdduwoo yàgg ñi def loolu yenn a yéen a kon nag indi na lii xaw ma lan moo si topp ñun tant que am na des recours juridiques ñun daan ko def Mbappé nag ñëpp daan nu dégg li moom mënul continuer moom waxtu wu defee lu rafet man taxaw naa wax ni kii li mu def rafet na waaw ndax sëñ Moustapha euh, si bind boobu mu bàyyi woon nga gannaaw dafa wax ni bu leen jël lu ñaaw di ko génne seen gémmiñ waaye nag fu ñuy normale justice ala adl na ngeen na ngeen xeex ba tëdd sa naaj waaw ñu si loolu loon nekk maa ngi wax wax bu metti sama yaram sax mayu ñu kontaan lool ci lii nga xam ni saxal ngeen ko 31 décembre bu ne mu ne maa ngi koy doraa fekkee nag waaye nag kontaan naa parce que bi sëñ Moustapha génne àdduna ba tey ñi ma miin ci xadara bi di leen gis bés nekk ñoom ñoo fi dajawaat tout le temps au poste même su ma demee à l'étranger dem leen di dem leen di namm ba duma rate seen émission émission Mouhamed Mbaye bi waa sëñ bi Asfiyaay Xaddam Xalifa mbay fu ma dem maa ngi xalaat seen programme nanu sant yàlla nag bi nu agsee ba fii léegi nag li ma bëgg mooy xale yi ngeen roof leen li sëñ Moussa daan wax roof leen gone yi teel leen roof gone yi il faut da ngeen leen teel parce que xale yi niveau bi ñu am xale bu nga xam bi mu amee trois ans quatre ans mi ngi si internet xam na si internet yow mi nga xam ne yaay waajuram xamu ko xale yooyu da leen teel roof ñuy richesse su daayira bi ma kontaan nag si organisateurs yi mooy ñi nga xam ni vingt quatre heures vingt quatre su ma gestoo ñi sama wet waaw suba su ma gestoo su mu dee génn su dee dellu si yëpp suma ma ñoom laay gis